moment yu mujj yi leen gis jigéen daal di dugg si li nga xam ne que moo di euh, wàllum activisme euh, ku su mel ne activisme nag ah fii Sénégal da nga ko jëlee lu xaw a métti parce que dafa bëri ay risques exactement mais tout d' abord dañuy ñëw jigéen taxawaayam am biir société bi tey jii 8 mars daal la fiy dalal Yolanda euh, aujourd'hui honneur aux femmes mm-hmm. mais tout d' nga jigéen ban taxawaay la war a am si biir société bi donte ñëpp ay lingar ngeen. waaw jigéen hmm. ñëpp xam nañ ni. Hmm. Euh, mooy li may wax sànq. Hmm. suñ ma ne woon yàlla su ma newaatoon tànnal lan nga bëgg doon dama naan jigéen parce que jigéen day symboliser générosité. jigéen li muy symboliser bëri na day symboliser force. parce que ñëpp xam nañ ni jur doom lu metti la. yar doom lu metti la te jigéen loolu noonu yëpp ci ndoddam la tegu kon tey suñ ma laajaatoon lan nga bëgg doon jigéen laay wax parce que symbole de générosité la. mais euh, li gëna tax journée bi li gëna waral journée bi néna naa. ñu koy fété lu ma métti lool la moy ñu roole melni ay tagle bol comme ni koy waxee d'habitude ma ngi jéggalu jigéen ñëpp en tout cas ñu roole yi sabar gi son gi benn folklorique par rapport ak journée bi c'est folklorique pour nous détourner de l'essentiel sank maa ngi la koy wax mané la. Mm. texte bi ma bindoon daaw. Mm. moom laay nekk ci mom lay basé waat mm. ren. te biir na ma ni ci lay basé wat dewen texte la bo xamné ne. changement chaque année. nan lay amé changement gisuñu ba légui évolution deug la mi ngi am ci yenn domaine yi mais dafa am yo xamné ay problème yu récurrent la té batay mi ngi fi hmm. euh da ngay nane inégalité des salaires surtout ci secteur privé bi hmm. nit ñi ne amatul nañu né ñom dunduñu ko mais am na ñu koy dund ba légui hmm. am na ñu koy dund moy inégalité des salaires da ngay gis ni goor ak jigen ci même poste am même diplôme nga gis ni euh, salaire yi day varier moy ku goor ki mën na am quinze à trente pour cent d'écart de mm. plus en tout cas que mm. ku jigen ki mm, ba légui lu am la te daw jambaton nako ko batay na euh, lu puissance paternelle moy tay par exemple jigen yi divorcé yi xam nañ ci dara wala jigen yo xamné ay mère célibataire lañu ñu xam nañ ci dara da ngay yor sa dom sonu ci euh, kenn jàppalewu la ci pàpp ji du la ci jàppale yow ya ko yor yaay dundal yaay inscrire école yaay def lépp nga wara voyager wala wara a jóge Ziguinchor Dakar mm. war a jël euh, bateau mm. wala wara jël avion mm. pour passeport ñu ne la yow yaay foog nga indi euh, autorisation parentale nga ne autorisation parentale man may parent wom ñu ne la non papam rek mo wara autoriser xalé bi mu voyager pendant ce temps pap ji il n'est qu'un simple géniteur pour la plupart des cas pour lan muy li nga xam ne dañ koy dund te muy lu metti yow yaay dundal sa doom hmm. yaa koy jox mu lekk yaa koy jox mu naan foo dem yóbbu lu suy metti yow la te ñëpp xam nañ yar doom ni mu méttee pendant ce temps ku góor ki nekk ci lu ko neex heure lijjante jënte papier jot ñu ne la foog ku góor ki kese moo la mën a autoriser yow yaay yow yaay yow mi nga xam ne yow yaa sukk jur yow mi nga xam ne yaa ëmb neuf mois sonn ci te kenn fekk siwu la ci góor su méttee ba métti euh, kii la lay wax massa mais y'a ko yow normalement yow ya wara signer autorisation pour pap ji yóbbu sa doom mm, mm. ci yone tax ya ci sonu mais ñu ne la foog ku ki du yone depuis ba député bu ko du congé de maternité mm. da ngay gis ño je dañuy euh, recruter jigen surtout marié discrimination femme mariée mom bind ko ci sa CV des fois dañ kii wóorut duñ ko jël duñ ko jël te discrimination la parce que ñoom dañoo bokk ci société bi congé de maternité da nga koy jël des fois ñëwaat bëgg intégré waat mu jafe la lool des fois ñu jaaree fa libéré la te du yoon congé de maternité am na ñoo xam ne ba léegi mënuñu ko am te du yoon jigéen ñi nga xam ñu ngi ci entreprise yi xam nañ bu baax li hmm. wax discrimination yooyu yëpp dafa nekk hmm. en plus de loolu lu mel ni règle yi tabu mais la plupart ci ñun jigéen règles douloureuses day ba sax ñun des fois ci ñun. Hmm. su leen fi pour nga am euh, médical certificat médical. pour au moins reposer au jour wala deux jours le temps que lolu pourtant ñu ko loi de la nature dañu ko wara nangul même doon lu jafé lol té dañ koy ñaawlu sa su nek maltraitance des femmes mi ngi am ba mm. légui c'est mm. vrai que ñu ngi ci sensibilité ñu ngi ci sensibiliser et que yoon mi ngi ci def mm. liggéeyam mais ba légui amna mariage forcé mariage précoce dans les zones reculées mi ngi am ba accès à la santé ba légui jigéen ñi moy lolou sa échographie day cher té pourtant waaw war nañ ci mëna am ay réduction serviette hygiénique dama ne normalement dañ ko war a offrir nit ñi te ba léegi mooy loolu am na ñoo xam ne amuñu ko dafa bëri ay problème yoo xam ne ba léegi mu ngi fii am na ay zone yoo xam ne hmm. tey soo fa demee pour nga mën a am doom da ngay toll ci moment bi nga war a accoucher ci fas dañ ngay teg wala ci saretu mbaam des fois nga gaañu ci yoon bi

wala offrir leen ay cadeaux je pense que nañu dem ci problème yo xamné vraiment moy problème d'actualité yi ñu fexé ko ñu fexé ko en tout cas fajj ñu fexé fajj problème yoy nonu lé en tout cas di wo député yépp vu que ñom ñoo ñu représenté assemblée nañu jappelé li laay war a pour li nga xamné moy inégalité des salaires yoy hmm. ñu wax ci puissance paternelle yi nañ ci wax non waxuma ci fépp am na xamné xam am égalité mais ba légui amna ci domaine hmm. yo xamné ne égalité mon mais surtout puissance paternelle yi mm. euh, nañ ci en mm. tout cas proposer ay mm. parce que les les femmes en tout cas ñu qui souffrent souffrir alors c'est lolu président 2019 na 5 ans bi da kay jigéñ ñi ak li nga xamné est-ce que jigéen ñi euh, gis né sen bopp par rapport ak ak quinquennat bu président Macky Sall bi exactement parce que li nga fi wax lepp ni dafa nek ay euh, euh, bol wala comme sax ay mm. revendication yi nga xam tam yag nañ est-ce mm-hmm. que amna na ay pas d'avancement allant dans ce sens bon amna ñu nek amna pas d'avancement man mm. par exemple je sais que côté mariage précoce mm. amna évolution parce que hein wa c'est si dañ ko criminaliser lolu yépp mm-hmm. amna amna en tout cas ay évolution lu am la évolution amna na. Hmm. mais dafa may problème yo xamné ne ñu taxaw ci. ñu jël par exemple mënoo régler ben problématique ci ce premier en tout cas sa première année d'exécution de ce mandat ba paré yenen quatre ans yépp nga tok ci même même euh, en tout cas euh, comment dire même bilan bi nga hmm. defoon moy année temps defoon na li mais année ci top lan nga def c'est vrai que amna évolution ci côté par exemple mariage précoce hmm, mais des na batay na donc euh, di leen ñaan rek ñu gën cee liggéey surtout député yi ñu dugal ay loi comme ni ñu criminaliser viol ak yeneen ñu dugal ay ay projet de loi yoo xam ne vraiment jigéen ñi dinañ ci yëg seen bopp vu que déjà parité dañ koy doxal foofu noonu mm. lee ci assemblée nationale mm. nañu profiter de l'occasion ñu jàppale ñu rek ci loolu parce que sénégalais yi sénégalaises yi ñu ngi ciy souffrir bu baax a baax a baax alors sénégalais ñooy laaj question Yolande lan moo ko dogal si li nga xam ne que mari activisme ak aussi vu que ni euh, milieu bi góor euh, si góor yi sax franchement et ay parents dañuy inquiété aussi ñom allant dans sens à tout moment mën la jàpp te bu si mujj sax moy fa nga xam ne itam mooy zone Tunisie exactement euh, commentaire yi ñoo xalaat lan moo la dougal, ci nga xamni moy ci mooy ci euh, acti activisme ak la mo la ci nga xam ne moo pour nga euh, donté activiste. yalla xam na ni. Hmm. deux ans ci ginnaw parce que je rappelle que defuma activisme defuma ci deux ans. Hmm, hmm. un an et quelque la la laa ci def moy septembre 2021. laa ci bokk. dugg bi naka moom laa la expliqué. su hmm. fekkoon man ak man dong la amaana heure bi maa ngi doon dugg secteur des fois di ma jaali parce que yaay hmm. fàlla hmm. mooy sama dund yëpp dama ko tënkoon ci liggéey des fois ma dolliwaat xam-xam mooy jàngiwaat. parce que donte am naa master et tout mais des fois ma yokkaat xam bi mooy dama ko tënkoon ci daara ji mooy euh, sama jaamu yàlla. sama liggéey. ak sama famille. ci loolu laa tënkoon man sama dund. mais dama fekkee injustice dama ko fekkee. mooy bés euh, mooy bi ñuy lutter contre la vie chère mm. dama gunge woon DJ Malick mm. parce que dafa ne dañu waroon a wàcc ci terrain bi jamono jooju ba muy naan ndax pare nga pour ñu jàpp la ma ne ko jàpp man bokkuma ci yéen jàpp moom mm. mukk ci àddina donc euh, parewu ma woon pour bokk ci dama ko doon gunge rek parce que moom rek moo nekkoon membre LCIS bu ci participer woon ci biir gunge bi ñu dem ba ci diggu yoon bi ma gis policier yi arrêté ñu may leen ñu jàll ñu ne noo wàcc leen auto bi par la force ba commencé di ko ubbi par force indi seeni matériel ak yépp ne force dañuy wàcc ci la ñu génnee Guy Marius de force ci oto bi jour boobu laay njëkk gisante Guy Marius ñu forcé ko génne ko ci oto bi mm. ma gis ñuy génne ay nit mais yéen lu tax ngeen di jàpp ñi sa yoon newu ci jour boobu dama doon aalu naan ndeysaan vidéo yaa ngi fi ba léegi mm. su dee loolu la jàpp leen ma ndax man ak ñii ñoo ànd lu tax nga leen di jàpp te doo leen ma jàpp policiers yi bañ naa jàpp mm. ma yuux di xataraayu jàpp leen ma ñu bañ. Hmm. mais man loolu daf maa révolté daf ma révolté loo parce que injustice soo ko seetaanee. Hmm. da nga naan lii kon dinaa ci bokki li ma doon dégg dëgg la. Hmm. kon foog ma dugg ci pour xeex injustice boobu. lii moo ma dugal ci activisme. ba ma ciy dugg gëmuma woon ni ku ma ne woon bés dinaa toog di wax nii duma ko gëm bokkuma woon ci ñooñu man je me disais que as tout temps bi ma am naa téye kurus gi. loolu laa gisoon as tuuti temps bi may am mm. rarement laa doon def sport mais mm. naa xooli li ma koy defee noo xam ne vraiment jaamu yàlla lay doon te dama dem ba xam ne ndekk ci li ma nekk nii sax mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla ndax ñi may xeexal ñëpp xaw ma leen maman Amédia bi ma jagleel journée bii en tout cas xaw ma ko ñeneen ñëpp xaw ma leen mm. Papito Kara tey déggante naa ak moom ba nii musuma koo gis dama koo xeexal ba mu génn mu lijjante sama numéro woo ak ñeneen ak ñeneen donc euh, jaamu yàlla la moo ma ci dugal injustice moo ma ci dugal di ko xeex moo ma ci dugal te di ñaan yàlla borom bi saxal ma ci ndax jàmbaar amul ku ñu dimbale rek an donc yalla na ci borom bi jamp euh, jàppale. Euh, saxal ma ci bama yag di xeexal dëgg. alors mm-hmm. cohabitation bi naka la démé parce que activistes yu bari nak ay góor lañu exactement parce que tout le temps dañuy naan góor yi euh, ngeen mooy ne ñooy ñoom ñooy nekk seen li nga xamné moy mooy seen fréquentation ñom xadi entre autres entre autres. Mm-hmm. peut-être jigéen ñi wuñu ci ñom Amidia mais cohabitation bi naka la démé exactement. wax dëgg yalla cohabitation bu bu neex. Mm. bu neex parce mm. que bi may doog a dugg si. man ñoom ñoo ma dalal. Hmm. du ma taay ci di ko wax organisation yi fi nekk yépp hmm. ñoo ma dalal hmm. surtout góor yi. dalal nañ ñu wommat nañ ñu jàppale nañ ñu te gëm naa ni sooy xool commentaire yi di nga xam ni ñoom vraiment ñu ngi ñuy soutenir. man li ma gën a neex ci activisme mooy. gaa ñi ñoom dañuy fàtte sa bopp seen bopp. ngir yow moo ñoom lijjanteetuñu sax seen bopp góor yi en tout cas. man tamit euh, ma am njukkal boo xam ne dama leen di delloo njukkal bu baax a baax. parce que am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ma ci mag. am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ma ci ciitu am na ñu bëri ñoo xam ne il n'était pas obligé en tout cas de jox ma cër boobu waaye da ngay gis pour ñu ne ma Yolande sax problème la li ngay gën a dégg maman yooyo maman Yolande yaay Yolande yaay Fall. Mm, mm, mm. mooy ñi ci ëpp boog yaay sax lañ may jàppee. te pourtant des fois day doon ña nga xam ne maguma leen. mais muy cër goo xam ne dañ ma koo jox. jox ko en tout cas jigéen yi fi nekk ku mel ni Khady bàjjen lañ koy woowee Sylvie maman Sylvie hmm. gis nga xam nga lan moo neex nga dem fi nga xam ne dañ la fa jox cër valoriser la te activiste yu góor yi ñoom ñëpp cat ba cat vraiment amuñu seen fay dëgg la nag combat bu métti la hmm. parce que surtout ci famille bi nit ñi dañ naan lu tax ngay génn ñu jàppal lu tax ngay génn début bi yomboon na pour nga euh, gëmloon ni exactement day metti combat yi ngay xeex euh, combat euh, pour seen survie nationale exactement day metti forcément day hmm, metti hmm. mais alhamdulilah man boog personnellement gis naa ñuy daj nag lu metti ci jigéen ñi mais man yàlla daf ma dimbale ba hmm. sama pap vraiment dafa am ouverture d'esprit boobu moom révolutionnaire la exemple suñu la arrêté day inquiété wu man mosuñu ma arrêté sama mbokk ñëw ñoom ñoom ñooy dalal ñeneen ñi mooy ñi leen di woo naan leen diw jàpp nañ ko. Mm-hmm. ñoom ñoo naan ah garaawul léegi ñu bàyyi ko loolu garaawul ba ci sama yaay. ba ci sama yaay man suñ ma jàppee du ma tiit ci sama yaay du ma tiit ci sama pàpp mm. mais ci sama maam parce que sama maam. Mm. bii passé bi ñu may jàpp yëgu ko. police dafa si ñoom. non pas diis bi mais. Mm. dafa am lien bu bu doy waar buy dox sama diggante sama maam. bi ñu may jàpp samedi bi yëgu ko. mais dimanche bi. daf ma woo ma ne ko mais xanaa da nga yëg affaire yi mu ne ma lu xew. ma ne ko dara lan la woon <laughs> mu ne ma damay xool ci loo nekk ci laa hmm. insisté ne ko dañ ma jàppoon ci laa ko ne dañ ma jàppoon mu ne ma yàlla xam na ni démb nelaw ma bizarrement guddi gi yëpp dama la doon xalaat hmm. xam nga des fois deret mooy wax hmm. ci ñooñu lay gën a métti mais alhamdulilah ba man samay parents waxtu gi yàlla nangul nañ ma ko xanaa ay jàmbur dinañ la woo bàyyil dellul ginnaaw bàyyil ñeneen ñi jiitu du question de bëgg jiitu

te dugal ci ay nit na teggi loxoom. Hmm. duñ ko ko ñaan na teggi loxoom. Hmm. ci dossier yooyu noonu la te libéré suñu maman Amy Dia place am du foofu njabootam ñu ngi koy réclamer le peuple sénégalais ñu ngi koy réclamer ndax lingeer la héroïne la jàmbaar la hmm. na ko libéré. hormis loolu di ñaan en tout cas député yi. Lima ma fi jàmbat yëpp ñu assemblée nationale pour une meilleure prise en charge en tout cas de des des demandes des femmes en tout cas les leen di ñaan noonu yëpp te ne jigéen ñi nañu gën a takkaat seeni sër gën gor góorgóorlu te xam ni góor na jigéen baax na mm. amul jigenu activiste wala goru activiste amul li ligéyu gor la wala jigen mais ça yu ñuy noot askan wi nañu paré taxaw pour mëna xéx lolu nonu lé mm. ndax dëkk bi limuy metti métti ñun ñokay koy kaani suñ ko yokkee ñoo koy yëg ceeb suñ ko yokkee ñoo koy yëg ak à la santé su méttee ñoo ko yëg mm. suñuy doom suñuy jéggaani di dem ci yeneen réew yi ñoo ko yëg parce que suñuy doom ñooy dem kon na jigéen ñëpp taxaw ànd ak ñun ci xeex boobu noonu le góor baax na jigéen baax na te yàlla borom bi gën a dëgëral seen taxawaay gën ñoom ay jàmm gën a revenir loo waat à la raison suñu président tane mm. ko du bokk ta bokk te bokk di jaajëfal ñepp en tout cas contane nañu bu baax ci invitation bi euh, un plaisir partagé ñoo la gën a kontaan Yolande ñu koy remercier bu baax a baax a baax baax di ko souhaiter aussi bonne chance si yoon wi yombul waaye incha inshallah di nga arriver mbokk spectateur alors li ma nekkoon seen mission mi d'info bu tay bi daal di def touti corrélation ak li nga xam ne rek moo euh, journée bi li nga xam ne rek moo di 8 mars bu tay bi mu nekk bis bi nga xamni tam da nga da jagleel jigen ñi fépp fi nga xamni tam itam ñoo nekk si li nga xam ne rek moo di wëngal képp alors tay ji na xel yu bari daal dem si yoolaan tey jii sax revue de presse bi dégg ngeen ko makay koy daal di wax daal di koy dalal te xam naa dina dem ci yeneen plateau inshallah parce que dafa bokk si li xamne ko modi moo la si yoon bi chers spectateurs merci beaucoup à l'ensemble des équipes en régie euh, qui Tafa moo fa daal di féete woon wéy leen daal topp suñu programme euh, FIA daan daañ ñëw aux environs de 16 heures si li xamne ko modi top ka ak FIA waye euh, je vous retrouve guddi incha allah seen émission yi nga xam ne que 65 bon après-midi à tous